basum Ya xew yow yaa ngi bégal xale yi Euh ma ngi nuyu ñëpp man la Kaja Bari di nuyu nak téléspectateur u El Vision Media Média Euh man la ka Kaja Bari euh, nekk actrice ci Noy May To noonu en même temps nekkaat présentatrice émission làmb bi ñu naan li ci ginnaaw mbër. waaye yow dañuy wax rek nga def sa kanam gu lewet toog naan maan nii man damaa sonn ci loolu. Eh, ba tey eh, yow yaa wóolu tëj sa làmmiñ nga mel ni seetkatu tubaab laa xam ne doo wax lu baax. maa bëggee loo dirigé di wax ngay sa kër nga dirigé sa kër. <coughs> Eh, euh, nag. El Hadj moo ma ci dugal di sama patron parce que dama doon def sama émission li ci ginnaaw mbër mu ne ma tey yow yaay tourné nooy maytoo sa noon ma ne ko waa d'accord lii rek moo ma ci dugal. man soxla ma sa 3 millions. 500 sax maa ko 2 millions 5 yow loo moom. 3 millions laa lay jox dama lay may 500000 francs. waaw ba ma ko mayee baax na mais man sama 2 millions 500 yi nañu ko teg ci table suba. ah 500 yi maa ko moomoon de yow léegi rek nga grand moom moo fi dara. soxna ah, si ku baax comme que yow defaloo kii eh, eh, da ngay eh, tëj te dem ñun li jënd ci problème bi ah mënoo ñoo engagé nag. yow laay waxal. toll ni ba taxul nga mën ñu day leer rek. non man nag. franchement bu ma ci duggee ba léegi aw ci benn problème. Euh, fu mu déposé pour di wut liggéey rek yàlla day dogal du am. maman copine ak xaadim laa fekk ñu toog di wax say wax. xaadim naan ko yéen ñaar ba ngeen dalee génn ba tey fóon bu dëgër sax mënu koo am ci yow. lan moo la jaral li xale yu jigéen nga jël sa ngor wanteer ko def ko ci palaat. ah en tout cas nit ñi bëgg nañ ko ñu ngi koy consommer normal ñun ñu koy suivre parce déjà léegi da génn sax nit di la ko laaj kon ñun ñu ngi koy saytaan bu baax a baax. quel que soit alpha ak lu mën a am rek nga vérifier xam lan moo indi lii. nag man nag wax dëgg fa yàlla man gisuma ci benn problème parce que yàqaluma dara au contraire dafa ma indil ay nit boole ma ay nit yoo xamante ne tey xaw ma leen woon mais. nooy maytoo sa moo tax ma xam leen parce que dañ may woo téléphone di ma envoyé message di ma conseiller naan ma defal ni defal naa yàqalu ma dara. épisode bi ma gën a neex ci nooy moytoo sa noon euh, bi jom joué waaw boobu neex na ma ci clinique bi. wala xam nga lu ma lay yëgal yow dañ lay consulter ñëwal fii. yow eh eh, eh eh jugal yow yow fenn sa biir yaram la nekk di circuler. Euh, fi mu naan dinaa la porter plainte foofu ma ci gën a neex. Ah. nii rek ngeen di def saa ne dama lay rey. dinaa la feneen. balaa nga may feneen ba feneen topp si kii. seen boobu man dama ne seen boobu dafa dafa dafa dafa mettee def dafa nakaree def moom nu mu mën a jouer seen boobu noonu ku nekkul artiste dëgg mënoo ko parce que yombul. te feebar bu ñu wax nga naan fi ay da ngaa dara nga baal ma doo wax may wax. équipe bi dama leen naan ñu yokk liggéey bi rek liggéey bi nañ ko yokk daal gën a mànkoo doon benn def benn dank suñ ko defee rek bu soobee yàlla nooy moytu sa noonu dina law ba faw ba jéggi frontière yi. téléspectateurs yi safoo El Vision Média xanaa di leen sant rek di leen gërëm parce que tamit yombul nga toog di seetaan muy jël sa temps. ngay woo nit ñi naan leen duggal leen épisode jox leen ñu jour yi mu war a am kon xam nga ne nit ñi ñu koy seetaan te ñor na leen trop euh, man na yàlla def na ne ñoom ñëpp samay xarit lañu loolu moom yàlla moo ko def ñun suñu biir amul ñun dañoo bëggante waaw dañoo bëggante dañ naan ànd jigéen yombul mais ñun suñu ànd amul saytaane amul dara dafa sincère. lu muy nekk ci néeg bi ngeen nekk fi nga ne da ngay jënd di bàyyi pour la kii daf maa mën borom kër xoolal kii yow xoolal kii xoolal garabu garab yi daaj mangoy daaju yooyu la ma indi doon kii matuma borom kër waaye et doo génn bu ma doon mango maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di gërëm nag sama yaay ndax awma fayam ba mu méttee loolu moom kese laa gis sama jëkkër moom aw ma fayam ndax daf ma jàppale ci lépp ba mu méttee it moom kese laa gis moom ma fekk fi ma nekk jàppale ma kon kooku aw ma fayam di sant nag Awa Minte borom États-Unis moom mi may jox cheveux yi naan ma del këppoo del tuuroo di gërëm ñëpp di gërëm Fat Sarr borom Espagne moom mi ci gaam yu baax yi moom mi ci bijou yu baax yi kooku aw ma fayam di gërëm nak ñëpp nak ndax ku lim joom di gërëm sama papa Jito borom Medina di gërëm sama yaay bébé Fa borom Faja di gërëm Rihanna Fall di gërëm lay sama xarit di gërëm fall Fall war yos couture nga xamanteni lu ka jabaré sol moko ko koku awuma fayam wa diko sant di gërëm ñëpp nak ndax ku lim joom Elvision media rew mi deglu len di fii lépp liggéey rek a wóor. fii donc fii rek fii kese ci El fii lay tàngee fii lay xoyom xoyomee du feneen maa ko wax. nit ku baax xam nga lu mu war ñax ak salaat du ñu benn ku weddi bi nee garab. liggéey euh, di def lu bari di wax lu néew. réew looloo koy doxal réew wax ju bari di ko doxal mais jëf moo koy doxal. soo bëggee lu leer nang ko jàpp lépp fii lay leeree xam naa ne ñii doomi réew mi lañ ñun ñëpp ñu ànd doo dem ca kaw laay lele laaw lu ne fan kenn du ko jeex yéen laay béggee nit ku baax daa waram gis-gis ba mel ni ñoom yéen amuleen moroom mi leen ñaanal gudd fan ak wér am xam nga àdduna booy bëreek moom da nga jël yàlla def ko sa entraîneur nga jël muñ def ko sa entraînement yàlla comme coach ku lay gañe suufa ñu dàq muñ foofu tu mu ñu mujjee toog ba muñ te ñàkk waaye wala dugg bett